salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu waa àdduna dégg nga maam dénkoom ak waa Thiès rawatina fi nga xamante ni dégg maam mooy Kajoor Galaas gii nga xamante ni moo nekk digg Thiès gi gii benn dëkk ñaari gaal dégg nga maam rafet nooy nepp nepp nepp nepp nepp nepp chaque jour ñu may sàpp dinaa am sëñ ngaral del ñëw kii dégg nga maam dénkoom ci Kajoor Galaas gii di fi sa xol yàgg sa waa kër ak sa soxna ñëpp ma ne leen dégg nga maam dénkoom loolu boo ko bëggee dama koy daal di def parce que ñun amuñu fu dul Thiès rawatina fi nga xamante ne mooy suñu ville de Thiès yii di dégg nga maam dégg comme di mairie yii ñoom ñëw fii def fi lii li nga xamante ne fii ku fi ñëw dañuy féex a soxal boo indaale woon àddunay mer boo dikkee jarom mer sax doo ko yóbbaale ñu ne nag boo ñëw yi nga xamante ni dafa nooy ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dégg nga maam di di di ko seddal guy guy man leen ndax léegi nag dégg nga maam sëñ nga la mag la buy ñëwee chaque jour muy ñëw si salle bi da nga maam bu yàggee yax yi day congelé te bu congelé bu baax da leen mu yóbbu yenn saa yi fële sa biti may toog foofu nan xaw a dund tàngaay bi tuuti da nga maam moo ñëw soog a duggaat kii sama sëriñ ak sama soxna rawat ne ki nga xamante ni mooy buuba nekk guy sa mbel di jaay foofu bitik ñu naan ko bës da nga maam dénga kom chaque jour moo may lebal départ ma koy jox sama na mii muy togg ceeb da nga maam dénga kom jimboom na képp ku mu jaay jimbo yow boo toggee ceeb sa jimbo boos doo nga yor jimbo bu neex bi yor ajaa bu neex bi yor mami bu neex bi yor jimbo bi ak olamas yeeg yooyu noonu yëpp dégg nga maam dégg ko buuba boo koy jaay kontaan naa nag buuba yàlla na bi doon ay bi sallallahu alayhi wa sallam nga maam dégg ko sama soxna nuyoo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam di leen nuyu yéen ñëpp rek ñoo ngi lay fay ah man de sëñ bi daa benn wax boo wax léegi mu jaaxal mooy lanati noonu mooy nga ni bës moo lay lebal ngay joxe dépense bës buuba moo may lebal dépense bi koo koy jox sëñ bi ah ku ma koy jox ku dul yow man musoo maa jox dépense. ak kon dee na kan ah, kan bu ya kon tif nga rey lu bu yàgg. kan mo koy jox dépense. kan mo koy jox dépense. ay jamono sama ya mo don jox. ay jamono mo la ma jox dépense. waaw ko don jox. maa ko doon jox. yow mii dégg nga maam dégg man maa joxe sama dépense. sama kër man kenn du joxal dépense. góor sax doom du ma dépense fekk maa sama soxna. waaw baal der yi. yow man sama place bu diigee ya tax. ndax luma ma ñoo def ko dépense. kañ nga ma da jox dépense ñew sax ma da nuyul nii woon yow loolu dinañ ko lijjanti. waaw ba tey maanaam moom fils. waaw moom fils benn la rek benn la. salaamaaleykum. maaleykum salaam. di nuyu waa Thiès. di nuyu waa Aduna. waaw di nuyu ñëpp daal. surtout waa Kajoor Glace bii ñu nekk nii. ndeysaan xam nga ni fii yàññi na taaru na. yàlla na seen jàmm yàgg waaw yàlla na seen jàmm yàgg waa Kajoor Glace. ñu ñëw fii. seen fauteuil ya nooy bay bëgg a dee. nepp nepp nepp fii boo fi toogee sax doo bëgg a jug. kilim gi di la dal. ñuy jaay ay po yi neex. Mhm. waaw di sant ñëpp daal di sant waa axlu bi mhm. xam nga mhm. ay ñoom Samba bàyyi ma gars yi quoi ñoom Papay ñoom Leuz ñoom ñëpp gars yi yëpp ay san Thiam Fallou Mbaye gars yëpp bàyyi leen waaw waaw baax na moo fis doy na ah. waaw yow dégg nga maam bu ma la joxul dépasse kan jox dépasse yow man maa lay jox dépasse yow mën nga lan yaa may jox dépasse yow de man maa lay jox dépasse waaw léegi tax fi mën yi nii bu nee jamono yi ñu bu nee moo may jox dépasse du ma ko wedd ah. xam nga tax du ma ko wedd ah. dégg nga soxna am nga ñaar téeméer at maam tax nga bi jaaw dégg nga maam wat sa bopp bi musu wóor woo defoo dara ku toll ni soxna sëriñ sëñ ngarale ku ne xam nañ sëñ ngarale mooy lépp nga wat sa bopp bi dégg maam muuru woo defoo dara boo nee rek mooy jox dépense dama koy gëm parce que mën nga koy dem di ko lijjanti gi sa àll ba di ma ko jox lijjanti si àll ba waaw defuma ko gis nga ba ngay ñëw danga maa fekk sama biir kër nga jógee dëkk ba wàcc sa ñaari jabar yi nga xam ne chaque ma xasee rek ñëw ma jëkk ci xaalis bi la ko naan nga mun ma cee may doo ma takkee yaa ngi may dégg bu ba nga ñëwee ba léegi liggéeyal nekkoo fi lu dul sëriñ laa te doo sëriñ sabaroo sabar nga wër ko sabaroo sabar nga wër ko bala maa dee nga naan ma sëriñ laa sëriñ nga rek sëriñ lee xam nga la laa bëgg a xamal nga la sa du keroog ne woon naa li nga génn kër ga nga maslaa ba génn ci gis nga boo moytuwul yow doo fanaan ci kër gi tay

man maa doon taal kon kan moo ma doon ay fleur kan moo doon taal fleur kan moo ma doon taalal kan ay fleur kan ah, kan yow ah. dimbali man lenn laa lay waxal dégg nga maam dénkoom boo déggee kër ak man la këyitu kër gi sa kër sa tuura ne dégg nga maam xeetu yu neex ma defal da sama nopp bi sama digg sama cuukeel bi sama xol sedd sama xol sori trop ma ni nga maam kër gi bind sa tur waaye binduma si dara dara binduma ko. laay ba papa kon sori nga de. sori tax xam nga sa papa la. Ah, li laa lay wax yow mun ngaa jóge dëkk ba ñëw di liggéey sama kër di ma taayal fleur yàlla def nga ni danga maa bëgg ma jox la loo ma takkee takk ma ma teg la ca kër ga nga ne yow yaa moom kër gi yow kañ nga jënd kër gi yow bu fekkoon sa tuur sax da cay nekk wala waaye mais man sama alal laa jënd kër gi dugal la ca fat la ci te bëgg te bëgg bëgg noo demee jëli sa ñaari jabar yooyu ñoo sànni leen ci biir kër gi waaw dégg nga maam dégg ko ma laaj la leen ma laaj leen moo sànni ba ñu doon tabax kër ku leen doon ataaya du <laughs> كم كم معمول سمكة يا ممكن معمول سمكة يا ممكن معمول سمكة يا ما سوي بني تبع صح يا لم ولا فيك لا لا فينيشيو دعنا ما ندم يا نقي لا لا سميل سابا يا مم لا سميل يا ما عندي سوى خم نتاخد بدو من يا لا سميل ah yow li gën a bon ah mooy kilifa gu tabaski di ñëw waxoo soble waxoo pomme xar yow yow déem yow kañ nga ma tàmbalee saraxu nday jëndal xar ci kër gi jëndal xar ci kër gi jëndal xar ci kër gi ba mu jënd xar nga ne commandé ko yow loo commandé saw lebeeg pomme de terre ba nekk ca waañ bi ko moom sa doom ko moom li ma fekkee la de ma fekkee la mon fils waaw ah, li ma fekkee la xorma xarma ak soble beeg pomme de terre bi ak ndugg mu sama meeg sa doom ji li muy sol ku ko moom ku ko moom moom xanaa kan moo ko jënd maa ko jënd ay man lu ma dugal ci lii <laughs> li ma dugg si loolu maa ko wax waaye waru ko wax lenn daal laa lay nga maam dégg nga bu ñu bis bu ñu tëbatee ak jàmm incha allah ma dem màggal Touba jàmm ak salaam ba dem màggal jëm gàmmu kii aan incha ma fase la. dama koy fase. waaw xam nga lan moo tax muy xaar loolu lépp. gi maa ko jox cent mille mu war a doolee ko seen cotisation yi. gàmmu ga maa ko war a jox xaas ba mu war a def ci seen cotisation yi moo tax day mun a xaar ba boobu paase waaye yow tey bu ñu demee doo fanaan ci kër gi. duma fanaan sa kër ga wax sa parce que jigéen lu mu wax da koy def nee naa duma fanaan sa kër ga sama fils yow yaay sama taw bi loolu moom ko seetaan loolu moom ko seetaan sa waay nga waaw dégg nga maam dégg ko loo ma defal la defal sama sama kàddu ak sama baat maa ko moom man maa moo tax léegi da ngay jël sa kàddu ak sa baat ma jël sama alal toog sa kër ga toog sa kër ga jaral na ma ma lu yéel la dé dé dé dé dé dé xoolal après dañ koy waxtaanee en lii nii xam naa ne da ngeen a réeroo rek. waaw dañoo réeroo réeroo la ak sama yaram tàng ma wax lu ma war toon wax. loolu xam nga loolu moom rek nga nopp yow rek la amee waaw mais dañ la réeroo déggoo rek waaw gën a xam. yow ci boppam sa kaa moo mujjee dépassé da ngaa war a régler dal tey waye da nga bëgg nek ci dëkk bi yaakaar yaakum yaa gëna met sa doom ju bu gënne ñu naan ko sa bay neena na fajkat la sa bay neena na fajkat ngay nangu xaasu xalé yi jigéen yi ak di ëmbal ci àll bi gis nga fat boobu nak benn ma bu fa dugg parce que fat bi dama ko doon sama maam maamaati maam sama téméri maam la ko doon fat bi sëñ ngaralé gi ni du azar de nga maam dégg ko fat na ko xamante ci sukurat la ko fajee ma ko fek muy sukuraat di waja a ma fat ko mu wër jugaat di dox ba léegi moom dund de nga maam fat bi moom bu fa dugg fofu mom sama waa déeguy foomu daa am. am na maa koy def man sëñ damay fomm bi dee. kooku de deewam bu mujjanteelu deewam dee bu ñaaw lay doon. dee gu rafet lay dee sax bis du dee. te bis buy dee day dem ba ni ma ah sëñ la la kat instant yi damaa bëgg dee sonn naa si dund gi dégg nga maam ma ray <laughs> yow kon yow dañuy toll man. lan la wax maa fii. dara. kii yow la. man la kay. yow yaa toog yow. man maa toog nii dégg nga maam mana lan la. dara. mana gis nga boo yow naa maa a xam ne na yow. da ngaa rep sax yow. parce que dégg nga maam dégg nga boobu ba léegi yaa ngi ma damay wër di ëmbalaate wala may wër di di di fajantu laay ba ñu koy wax du yaa ngi toog xale bu jigéen ba bu muy ñëw ca kër boo doomam boo doomam ca ga yaa ngi yaa ngi fa lan laa ko wax du damaa bëggoon a nangu xale mu ne ma ba ko naa ko téye waaw man samay rawaan bu mu waxee bu faj jigéen foog mu ko du ma ko ko defee noonu samay rawaan man buy faj jigéen mu ëmbal ko ma soog koo la maanaam ah. maanaam dañ koo bañ loolu su ma koy def du ma neex sax parce que may samay ruwaan ñoonu ma yow booy fat jigéen foog nga ëmbal ko ba pare dégg nga ma. papa na maa ngi jégal ah, mais lii yëpp ginnaaw yàlla yaa tax sa doom ji di ma wax lii. ah yaataan nga sama xol bi cuq ma foo xamante ne bëgg. yow de bu ma la wax wax yoo xam ne ba nga juddoo ci sa ndey ak ba léegi mosoo dégg sax baat boobu ñoom ñu wax la ko. kon ba ma waxee ma ray la kon. ginnaaw yàlla ñoom. tey yow la gën a jege. ray sama nekk fi dégg nga lu ma wax lu may wax loo xam sama kilifa ñi moom moo ko wax moom moo koy wax. ah mais mais mais mais mais ñaar ko sëy. ñoo ko seet mais sekkatuñ ko. Ah. kii léegi kii ñaari fan laa ma ma rey ko dégg ma maam jël kër gi. jaay ko dem France ma dem takk soxna tubaab. <laughs> dégg nga waaw. parce que xam nga tey doo faral. kër gi de su ma génnee keneen ko fi dugg. bu yóbboo mu xam ni deux jours moom laa ko may mu génn. moom mu génn. te yow sax xam nga nan laay def bu ma demee ay wiisa laa ñu génn la ci biti toroxal la torox ba nga ne. ay lan ba nga ba nga ba nga ay wiisa mu wut ay desere. ba nga xam ni ay desere laa indi. di nga yow bu ma bu buñ la génnee. barki yàlla di nga rus sax fañ fañ la juug ak say bagage di nga fa rus a gé jugee. man da man da man sama rus kaa jël. waaw loolu laa fàtte fàtte naa ne amoo gàcce. fàtte naa ne amoo gàcce. léegi nag am nañu ko amoo gàcce. man rus amatuma rus. sa doom a ngi nii toog amatuma lu may bañ amatuma lu may. yow yaa bon dégg nga maam te yaa yaa ma wax loolu loolu lépp waaw man ama lu may bañ amul lu baaxoo. xanaa sama bon tey nga koy baaxoo dégg maam ba ma leen la. baaxoo ba ma leen la bëggal. baaxoo baaxuma. yow li ngay dem biiralee ut ko say njaboot yoo xam ne yaa ko jur moo gën. jëli ah, sa ñeent aawoog ñaareel bee ñëw teg ko. te lijjanti ñeenteel teg ko. wax dëgg sa aawoog ñaareel bee nga sànni ñu ma tabaxal leen ci kaw defar ko ba mu ne panaal ba nga xam ne bu ñëwee dañu am luñ ciy xool jëli leen nga ñëw teg leen ca kër ga. waaw waaw kii xam ay doomu baayam. loolu maa fi loolu dinañ ko réglé ma ak sa yaay moom mënatuma sama sama allergie yéeg na yëg boo xamante ne léegi nañ teg ko ci baaraam bi dina ko tëdd ñu li jënd loolu waaw waaw baax na ginnaaw yàlla nag bu loolu weesoo euh, ñoo ngi leen santaat ji leen gërëm bu baax a baax tey jéggaluwaat di wax ni émission bi moom li tax ñu sàkk ko mooy ñaar yi di leen bëggeel si comédie en même tamit di leen wax loo xamante ni aman na njëriñ réew mi parce que di wax àdduna moom nii la lii la lii lañ nekkee kafooree jaamu yàlla waaw amul leneen parce que ñun ay doomu aadama lañu rek nit te jamono ak dégg maam toll na koo xamante ni foofu ñu jéem bëggee nit ñi pour par problème yi bëri na yaa ma gën a xam lu ne xew na si dëkk bi. waaw léegi nag bi waxaat euh, seen émission baa ngi Kajoor Glace lañ koy defee di leen fàttali tamit bërëb bii bërëb bu am importance la bërëb bu am chance la parce que lii dafa neex parce que fi mënoo fee ñëw jour te fekkoo fi nit te ñaareel bul xam nit kooku lu ko fi indi xamoo ba xam am na xolam metti na wala dara amul fenn fu mu xalaat pour fii ñëw bëggal xolam waaw di la wax ni fii dafa doon njariñam fii nii ko doon wax fii ba suba doo jigéen parce que nit mënon na xey def ñaaw teef ñaaw teef bo xamantene tay bu ko defoon koral lu metti lay doon xol yi yepay yëngu mu ñëw fi tok zéro ko bop problème bop dem mu demaat ko ne affaire bërepp bi fu amulon imageer yoyu kon tek tay ci dëkk bi ñaaw teef yi kon kon ku ko kan moko li jël di wax ni yeen wa kajar glace vraiment vraiment ya nga seen jamm yag te li ngeen bëgg ñaan ko ngeen dem ba fi yépp ngeen occuper fa kajoor glace fi yépp fees del dem ba fi ba ci kaw tele fa ngeen fa kajoor glace parce que yeen dañu am jarign ci dëkk bi vraiment da ngeen am njëriñ ci dëkk bi carrément di wax ni kontaan nañ bu baax a baax parce que li mooy àdduna daal comme ni ko gisee rek waaw waaw waaw waaw waaw comme ni ko gisee comme sama papa ji ni ko waxee rek mhm. di santaat ñëpp di gërëm ñëpp mhm. surtout waa Kajoor Glace mhm. di leen di leen nuyuwaat daal ndax vraiment li ñu def nii nice na trop waaw ñëw ba ci digg digg Thiès gii nii créé fi lii xam nga li nga xam ni nii fii boo meree comme la ma waxoon soo meree boo fa duggee ñam seen benn poowu glace. Mhm. waaw da ngay da ngay dégg jàmm. Mhm. ne ko si yow léppay rek xam nga hémorroïde rek. <laughs> yow ak glace xool ko xool ko. glace amul foofu sama yaay ni mu mel. waaw ma sa yaay moom gis naa ne a góor jàppale góor waaw parce que tey jii jamono point boo xamante ni tooñaay ma tooñaatee rek maam foofu laa koy jàpp. jàppale maa la ko parce que moom daa bëgg yu nooy lu neex rek. daa moom bëgg lu neex moo tax mu ni dama lay seeyal parce que xam nga sa baay dafa neex rek fii sa baay laa ma. waaw man naa moom fii tey bu ma lay may gudd. man moom tey bu gàtt laay maye parce que tey man amuma envie moom fii di la joxi kele parce que dama lay joxi kele mais doo ma delloo. dama mm. damay bëgg su ma lay jox doo may delloo. waaw euh, maa fii dimanche damaa demoon ndeysaan benn làmb boo xamante ni sama benn wóolee su ma la boo xamante ne dafa baax ci man lu mu xewle da dama ciy yëgal léegi maam dégg ko ma ñëw defal ko ci ay ma nag tey damay benn làmp boo xamante ne làmp bi nag ab ab ab ab célibataire mooy moo doon bëree ab marié dégg nga maam marié bu mu doon bëree nag marié bi ndeysaan moom lu bëgg moom léppam soxnaam la moom man boo boo ñëwee beneen waxtaan boo waxee ñaari baat bu xam kooku bëggeel mënu wees kooku noonu la ah ñun dañ laa tëggal làmp incha allah moo may moo may gunge ba sa géew ba dégg maam ba ànd si na génn te boobaa sax mu ko loolu wóoru na dem toog ba nga bëree boo daanee mu ñëw yóbbu la bu ah. la daanee yóbbu la si nekk ci raar léegi nag ba ñu a bëri ñu mu war a def yooyu yëpp ndeysaan dégg nga maam ba arbitre sif la ñuy léewtoo dégg nga maam ñoo ngay léewtoo diggante marié bi célibataire bi ñoo ngay léewtoo ko marié bi xaan xaan xaan xaan ba ci jabar gi jabar gi ni ko nijaay moom mu ne ko garaaw sonnoon naa waaye baal ma géré ji ko parce que sama mbëggeel jar na ñëwaat ni ko ñëw taay bi dënn bi léew tóo léew tóo gis nga saa ay marié bi sa liberté day jàpp ngemb bu mu jàppee ngemb marié bi da nga maam bu mu xëccee xam ngemb bi naka tan ngemb kii sëru maamam la la ngemb ko affaire bi bu mu xëccee da nga maam dégg ko silibu sigén yooyu mooy silibu yoo am bën bën naka def ngemb li moom la ko doublé marié bi daf silibu jabar ji la ngemb boobu naka dafa doublé dégg nga maam fa la daal